présidentielle 2024 kan mooy nekk candidat opposition bi ci élection présidentielle ab laaj la boo xam ne journal bi di Rewmi Quotidien moo xëy di ko laaj nee nag Karim Wade xelam jamono ji nekk na ci présidentielle waaye nag si njàppandalu PDS ak coalition wàllu Sénégal Karim Wade dafa bëgg imposer boppam nekk candidat de l'opposition waaye nag ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko moom jamono ji li nga xam ne moom la leen rawee ci boppam moo bëri ci lu jëm ci élection ba maanaam xam na lépp maga ko yara yéene kaay gi di réew mi ko di cee nee nag du ñàkk ñeneen ñoo xam ne dinañu wax ne daal ay candidat lañ ku ci mel ni Khalifa Sall ak Malick Gakou ba ci Barthélémy Dias waaye nag bu ñu wax waxantee dëgg élection présidentielle 2024 maanaam enjeu bi dëggantaan enjeu bi dëggantaan diggante Karim Wade la ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ci opposition bi yéene kaay gi di critique nee na nag ñi nga xam ne ñooy waa PDS te dëkk ca géej waaye ñoom jamono ji li nga xam ne moom la ñuy sàkk mooy retour Karim Wade yéene kaay gi di Walf Fadjri xibaar naan ñu nag élection présidentielle 2024 Macky Sall ak jéegu yi nga xam ne moom lay teg Macky Sall daf cee bëgg a bokk maanaam 2024 élection yi Macky Sall ak ku doxalinam maanaam méngoo na ak ku bëgg nag sampat ndëndëm ci élection présidentielle 2024 yéen a kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Serigne Habib Sy Dabakh nee na nag Macky Sall bu dee nag jéem naa laaj beneen du mandat maanaam Sénégal mën naa dugg ci musiba ma bokkumba Sénégal mën naa dugg ci guuta musiba gu rëy mën naa am ci réew mi nee na tamit Macky Sall Sall jamono ji war naa xoolaat bu baax a baax a li nga xam ne mooy entourage sama nee na ci lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji na ci ministre bi ñu dénk wàllum justice nag def attention bu baax a baax loole mooy kàddu Serigne Habib Sy Dabakh baax kaay gi de source a ñu koy fekk fa El Hadji Malick Ndiaye bu Pastef moom nag nee na élection présidentielle 2024 amul kenn koo xamante ni mën naa tere Ousmane Sonko nekk candidat maanaam muy taw muy naaj ñoom nee ba ñu ñu si nopp bu ñu saañum ngeer luñ bokk ci élection présidentielle 2024 maanaam mu neex Macky Sall ak mu ñàkk ko neex demee ci élection présidentielle 2024 maanaam dafay gagné élection yi ci lu leer nañ ndax askanu Sénégal moom la ñu a kaay gi di fa soppale ñu koy fekk fa mambay ñaa nee na élection présidentielle 2024 Sall am na sañ-sañ daal di ciy bokk loolee ci boppam nag wàllum yoon ci réew mi moo ko ko maye ñaa mooy wax nee na Macky Sall war naa poser candidature am élection présidentielle 2024 ñi nga xam ne nag ñooy waa APR Guédiawaye ñoom nee nañu nag bu ñu àttewul Ousmane Sonko ak Adji Sarr élection présidentielle du am 2024 ñoom li ñu bëgg mooy ñu àtte Ousmane Sonko ak Adji Sarr wala élection du am ci réew mi yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal jamono ji ñoo ngi nas ay pexe ngir nag taxawal ay groupe parlementaire yéen a kaay gi di Source A nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñetti groupe parlementaire la ñu bëgg waaye tamit Benno Bokk Yaakaar ñoom tim dañoo bëgg taxawal ay groupe parlementaire yu bëree bëree bëree comme ni ko opposition bi defee yéen kaay gi di la Quotidien nee na Ousmane Sonko moom Lamine Thiam la bëgg mu nekk candidat ngir nag mën a gagné li nga xam ne mooy njiitul assemblée la Abdoulaye Wade moom tim nee na maire candidat Lamine Thiam la yéen kaay gi di la Tribune nee lu jem ci poste premier ministre jamono ji ñoo ngi laam-laamee Idrissa Seck ndax nag nee nañu Idri buñ ko defee premier ministre mën naa fexe ba famille libérale ñëpp daal di nekk benn waaye tamit jafe-jafe yi Macky Sall am Touba di war na koo mën a lijjantee bu dee nag lu jëm ci assemblée nationale nee nañu Aminata Touré la ñu fay yóbbu Pape Diop ñu jël ko yóbbu ko nag au conseil des collectivités territoriales mooy li Aminata Mbengue Ndiaye jiite yéen i kaay gii de l'info nee na nag Idrissa Seck bu ñu waxantee dëgg walla wéy na moom Idrissa Seck maanaam Idi ci boppam moo sànku ci lu jëm ci wàllum politique te nag li nga xam ne moo sànk Idrissa Seck mooy calcul politique yi nga xam ne moom lay yàgg def te parti bi nga xam ne mooy réew mi jamono ji ci naax saay la jëm Idrissa Seck réputation moo yàqu Idrissa Seck amatul benn crédibilité yéen a kaay gi de la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu juróom-ñetteelu édition Sapon Africa Macky Sall woo na nag privé japonais bi ngir ñu dugal seen loxo ci Sénégal waaye nag Tokyo dina daal di décaisser lu toll ci trente milliards de dollars réew mi quotidien nee na nag conférence internationale de Tokyo ngir nag lu jëm ci développement Afrique biñ doon amal samedi ak dimanche ca Tunisie xew nag si yàqu la jëmoon ndax Omaro Cissé Kô Ambalo dafa mujjee gedd na jéema policier yéen a kaay gi di vox populi xëy duñu xibaar naan ñu màggalug Tuuba jàpp nañu ko fukki fan ak juróom la ci weeru septembre yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na lu toll ci cinq cent journalistes danañu leen agrédité ci màggal gi yéen a gi di sunu làmb Balla Gaye numéro deux moom nag mere lool ki nga xam ne mooy Bira Sène Bira Sène mi jiite CNG ndax Balla Gaye deux keroog ba muy bëree ak Gris Bordeaux dafa andi woon benn sëriñ boo xam ne dafa masque woon ba kenn xàmmiwu ko loolu nag Bira Sène mi jiite CNG nee